xamante ni loolu lañ leen jaay jënd nañ ko. d'accord maintenant nag jox leen seen weccet kese ki des et man encore une fois je fais confiance au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mm -hmm. et je confiance aussi à tous les Sénégalais. Mm de bonne foi. ak mhm. lu dul Sénégal dem ca kanam. Mhm. bëri nañ fi ñu ngi fi. waaw mm-hmm. ci rapport réforme yi ñuy wax ak pacte national bi boole ci ak bonne gouvernance democratique alors foofu laay tàbbi pour mun a dugg nag ci li nga xam te ne mooy installation bu jomaay nu mu nar a demee ak itam gouvernement bu yees bu ñu war a xaarandi mais mais mais mais balaa boobu damay dugg ci euh, ndax Cheikh Ousmane laal na ko euh, kilifa laal ko waaye metre moo ko njëkk laal donc ci reforme yi ak pacte national ak bonne gouvernance démocratique bi bi bi mu wax dañu yàgg ko dégg maître euh, su ma sukkandikoo ci yow lan nga jàpp ne mooy défi yi nga xam ne moo gën a am solo ci pour président Diomaye euh, ci la war a daal di nekk ngir relever wàllu démocratie ak état de droit ak bonne gouvernance ci réew mi nga xam bëri woon na coow lool ci ci gouvernement bi ñu génn. waaw defi yi wax nga ko sànq euh, bu ci njëkk moom mooy refondation bu institution yi wax na ko démb dama jàpp ni moom ak Ousmane Sonko. yàlla moo leen jaarale fu mu leen jaarale maanaam mm-hmm. benn parcours initiatique mm-hmm. man ak suma naataangoo xam nañ li nekk rëbës mm-hmm. sénégalais yu bëri xam nañu ko mais souvent euh, politiciens yi ak décideurs yi du ñu am représentation bi nga xam ne moo fa nekk dañuy foog ne ay yëfu militant des droits de l'homme la dañuy dénoncer euh, wala yëfu avocat la mais tey ñoom tey Pastef je pense que fu ñu lu ñu dund ñoom ci événement yi dund ko dans leur chair euh, dem ba ñu téye leen ndungu siin ñu génn tey jarul ñu leen di nettali wala ñu leen di wax lan la ñu war a soppi hmm. ci karamu réew mi ak ci lieu de détention ak privation de liberté yi hmm. ma jàpp nag loolu laataa moo am dund nañ ci benn crise crise bi nga xam ne aussi gis nañ ko président bi nga xam ne moom mooy buum moom mooy bumi ci projet am la bokk hyper présidence bi. Mhm. Euh, kooku foog ñu xoolaat doole ji. ba ci lu mujj maanaam sax mbirum élection nu muy doxee fii ci réew bi crise yëpp tomb bu ci nekk dañ ci war a jàngat. maanaam tey laaj buy samp est-ce que jotul décret buy convoqué pour election ñu jox ko benn autorité bi nga xam ne du doon président de la république. maanaam ñu jox ko comme Sénat ak yooyu. comme ça du mën a xëy di rocci wala muy randal d'une certaine manière donc yooyu yëpp dañ ko càmbar. Euh, je pense que su ma naataangoo wax na ko sànq ci coalition bi am nañ ressources yi nga xam ne en tout cas yàlla def na ni am na creuset de compétence la te buñ ci yeggee danañ ko recenser nu nu ko defee ci recours yi ak ci yeneen combat yi danañ ko def ba nga xam ne en tout cas coppite yi nga xam ne moom la ñuy xaar muy indépendance de la justice muy eh, juge des libertés et de la détention bi nga xam ne war nañ ko teg parce que tout simplement procureur warta yor doole ji réforme conseil supérieur de la magistrature bi wax na ko génnee ministre de la justice su conseil yooyu yëpp ay xeetu coppite la wax ngeen ko sànq non cumul bi non cumul bi aussi kooku day permettre ñaari mbir ban ak ban maanaam partage des responsabilités tey gis ngeen ko ay jeunes yu bëri toog nañ jàng yor diplôme am gis-gis bu bees xam-xam bu bees bi nga xam ne méngoo na ak doxalinu réew bi euh, et que bu ñu leen tegoon aux responsabilités danañ mën a changer indi ay coppite mais suñu am possibilité da ngay ñëw député ba mooy maire mooy ministre cumuler lépp d'une certaine manière donc mu am benn amul circulation des élites lu ñuy wax ay en science politique d'une certaine manière day mel ni day am bouchon maanaam nit ñi dañuy toog am 40 ans 50 ans 60 ans ka fa nekkoon maire buy dem boo matud yow mii di yegg si nii yaa ngi 60 ans d'une certaine manière. Hmm. ba nga tollee sa diggu doole am ambition. xam lan mooy enjeu yi doo mën a participer donc kooku le fait ñu partager dindi cumul yi dina réduire mbir moom mooy tout ça mais aussi wax nga ko ci pacte de bonne gouvernance bi loolu lu am solo la man dama jàpp ni Sénégal tey lu ko mën a développer nekkul mbirum ressource bi ak gaz bi Hmm. lu lool xam nga mooy développé Sénégal. lan moo koy développé selon euh, moom mooy ordre. parce que dama ko dund ci yeneen nation dem fekk ay réew yu mel ni Singapour yàgg a xool seen développement lu ñuy doxee. ordre c'est-à-dire. gis ko euh, Rwanda. Hmm. gis ko ci yeneen i xeetu dëkk yi nga xam ne en tout cas ordre bi moom mooy lan mooy xeex ak corruption bi. tey mbir mi amul laam-laam yi ñun ñëpp xam nañ fan mooy ilo de corruption yi. jarul conférence jarul rapport dañuy jël suñu oto di daw di ko gis ci mbedd mi d'une certaine manière yooyu la ñu war a am fit ak mat bu ànd ak détermination pour attaquer ko xam nga lu tax gis nga boo xeexee corruption d'une certaine manière loolu day rétroagir day rétroagir parce que ci finance publique bi parce que ñaata xaalis la état di perte daanaka boo moytu sax di nga mën a multiplier par deux li nga xam ne mooy recette yi nga xam ne moom la état di recouvrer dama ko gis ay dëkk comme Rwanda ils l'ont réussi avec la digitalisation tey mbirum xaalis amatul ay mbirum corruption et tout ça et dañ ko def impératif boo waxee ordre bi moom mooy lan mooy mu am discipline maanaam administration dañ koy orienter vers ce qu'on appelle l'efficacité stratégique et opérationnelle maanaam du nekk administration bi nga xam ne dañuy jël téléphone di wax saa yu leen neexee alors que xam nañ léegi avec un intranet ah euh, gis nga mën nga ñëw euh, communiquer administration yëpp ci moom la ñuy tuer en France. Hmm. kenn amatul téléphone d'une certaine manière. Hmm. mais ñun ñooy toog am administration bi nga xam ne. Euh, day fay ay facture téléphone am naa suba benn client bu mosu ñëw Sénégal mu def muy liggéey sur la restructuration de la dette des lu état yoral société yi nga xam ne ñoo yor téléphonie bi mais mu ne ma mais Abdoulaye mais seen administration bi lan la ñuy wax ci téléphone pour état mën a yoral lii nit ñi d'une certaine manière alors que kooku dañ ko war a yooyu yëpp tey gis nga dépense yooyu yëpp maanaam xaalis bi nga xam ne état mu ngi koy ñàkk dépense yu mën a ñàkk xaalis bi nga xam ne état mu ngi koy ñàkk ci corruption bi mu warul dugg ci poosu état muy dugg ci poosu ñeneen mm-hmm. xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy def ci yi nga xam ne àdduna permettre nañu liggéey san jaarati ci yooyu xaalis boobu yëpp boo ko jëlee mm-hmm. mais mën nga financer les euh, bu wu santé bi ak mm-hmm. équipement bi san wuti xaalis bu bees d'une certaine manière beneen poñ bi moom mooy bu bu ñu paree bala ma daaneel ci corruption bi euh, foofu tey beneen défi bi moom mooy défi wu sécurité défi wu sécurité dafa am solo parce que dama ko gis ci benn bu réew bu mel ni Rwanda xam nga Rwanda amuñu géej mais léegi daanaka seen tourisme mu ngi romb tourisme wu Sénégal te moo ne amul lu tax nit ñi dafa dem sécurité jigéen mën na gën trois heures du matin dox dara du ko jot parce que état bi nga xam ne ordre la maanaam ordre bi euh, dañu jël priorité jeunes yi nga xam ne ñooy wut liggéey wala toll ci liggéey ñu jël leen ñu renforcer force de sécurité et de défense yi bañ leen jëlee loolu day créer tout suite ay emplois yu junni junni emplois yu bees yu municipalité bu nekk mhm. pas comme suñu ASP yi mais ay vrai emploi mhm. mais dafa nekk ay emploi yi nga xam ne dañ koy woowee emploi non délocalisable kenn mënu ko jël xëy xëy yóbbu ko feneen day day sax d'une certaine manière mhm. gis nga sécurité boobu nag tey moo permettre que touristes yi par exemple di bàyyi Sénégal dem Maroc parce que ils se sentent plus en sécurité di bàyyi Sénégal di dem ci Gali wala wala Rwanda d'une certaine manière mm-hmm. et que loolu fu may jeexale dafa war a ànd ak leneen mm-hmm. mooy salubrité bi salubrité mm-hmm. maanaam bu ñu ñëwee bëgg a xeex insalubrité bi mais dañuy créer ay emploi yu bëri mais aussi kooku day permettre dëkk bu am sécurité am salubrité touristes yi dañuy ñëw investisseurs yi dañuy ñëw d'une certaine manière et que loolu pour jeexal bu ñu amee sécurité am salubrité day permettre ñun dootu ñu wàññi suñuy dépense de santé hmm. parce que maladie yu bëri yi nga xam ne dañuy juddu mbirum salte ak ñàkk organisation loolu fu may tëjee moom mooy aussi beneen défi bi daf ñuy permettre ñu gérer mbirum inondation yi mbirum inondation yi la plupart du temps lu gën a tax mu difficile yenn égout yi dañuy ñëw parce que tout simplement kenn débouché wu leen avant donc ñu anticiper ko voilà ci tënk alors nu ñu mën a def euh, maître merci beaucoup maître Abdoulaye nu ñu mën a def ba relever wàllu démocratie ci réew mi parce que réforme bu njëkk ah ñu bëri jàpp nañ ne justice moom warul ñoo mën a def teg benn ba ñaar ba ñett te duñ ko ci njëkkee suñ ko njëkkeewul tamit mu nekk deuxième bi mais naka la ñu mën a def ba dooleel démocratie fi mu toll nii ndaxte euh, voté nañu ba pare juróon na coow yegg nañ ci processus bu jaxasoo fi mu toll nii ñuy wax ay pacte national bonne gouvernance ak ñoomi seen donc démocratie bi naka lañ mën a kañ ko ba gën koo doole ci réew mi nga xam te ni dara dootul manqué. Euh, je que démocratie suñ ko dee wax dans un état de euh, ko wax te waxuñu justice. Mm-hmm. parce que justice boobu ngay wax noonu. moom mm-hmm. mooy euh, lu ñu ko mën a déférer sax mooy c'est la c'est la bouche du droit ou bien la bouche de la loi. Mm-hmm. voilà parce que justice deful lenn lu dul appliquer loi ya nga xam ni dañ koy voter au niveau de l'Assemblée nationale. Mmh. mais euh, ñëpp xam nañu aussi gis nañu tamit loolu c'est pas euh, c'est un secret de polichinelle ñëpp gis nañu suñu justice euh, ces dernières années taxawaayam te wax dëgg yàlla nag suñu waxante dëgg rek ñu bëri rafetlu wuñ ko loolu